Habib ma toogal nii toogal nii ñëwal toog nii ñëwal toog nii rek. jàmm jàmm Diego euh, maa lay nuyu ci turu Serigne Mor mi sunu xalifa xalifa Serigne Malick Seck nee na lay ziare bu baax doog a yegg si léegi rekk jógee Touba ngir ñëw fas yéene bokk ak yow bis bu màgg bi te mu rëy lool nag ci moom ak njaboot gi yëpp ñu di la ci ndokkeel bu baax it di la ci ziar di ci am mbég lool ndax yëg gi ak bàyyi xel gi kawe na lool ci moom waaye mu ngi ànd ak njaboot gi yëpp ñëw ngir feeñal yéeneem ak paspasam pasam ci bis bi xam naa dina ci am lu muy jéggulu ndax bu ko sañoon bis bi lépp lu fi yëngu moo ko yëngal lu fi doxit moo koy doxal doonte kàttan gi yeggu fa it xam ne pas-pas bi moom mate na ko bi mu yegg léegi la ne day yegg si ziyaare la euh, amit addiye jum fàggu woon xam naa xeeb ko lool nag a jamono ni muy doxee rek euh, bëgg koo bokkee ci bis bi di la xamal ne it nag bis bi moom wax dëgg kawe na lool ci moom euh, di ñaan it ci barke maam Cheikh Anta sëñ Maodo Roqeya Eh, bis bisun suñ borom nangu ko eh, te boole ko ci bis yi mu gën a fonk eh, te it yow mi koy taxawu ànd ak njaboot gi yëpp daara ji suñ borom bàyyi la fi nga wér lool te yàgg fi te bëri xéewal ak mbooleem ñi ko ànd ak yow ñëpp rek di ko ñaanal it bokki taalibe yëpp naa ci tënk daal ginnaaw day doog a yegg si rek di ziare la tënkaale kàddu yi rek ba ca kanam allah. dañuy delloo nuyoo waaw dañuy delloo ak nuyoo rek jox waaleykum salaam eh, Serigne Mor ñu lay delloo nuyoo ci turu Serigne Saliou Mbacke ibnu Cheikh Modou Rokhaya ibnu Serigne Modou Mamoun ibnu Maam Cheikh Anta sëñ Saliou ngi lay nuyu bu baax sëñ moor di la ziyaare di la masawu coono ci coono yi nga day jànkontoon ci bis bi di la ak di sa mboolem rakk yi nga àndal sëñ Basiru ak njaboot gi yëpp ne ngeen di ziyaar bu baax di am mbégte mu rëy si seen teewaay bi wax dëgg yàlla xolam sedd na guy eh, sëñ Mor bu toogoon Touba rek yebal kenn si njaboot gi mu teewal ko rek sëñ bi dina ko loolu dina ko doy sëkk xolam dina sedd guy dina mel ne njabootu Baye Maal yëpp teew nañ waaye eh, barki démb rek nga fi jógee ci ñetti fati baraxlu yi nga tey koy bàyyaat si te ñëwaat fi loolu sëñ bi nee na gis na ko bu baax te xolam sedd na ci mbir mi rëy na lool ci moom daanaka jëmm ji rek bu teewoon sax doon na sëkk rawatina xewal li ngeen yëkkatiwaat jàppe ko ci bis bi ak njaboot gi niñ taxawee ci bis bi xam ne boo ko sëñ bi jàppee ba léegi moo ñoom ñoo ko ànd loolu mu la ko seetal bu baax a baax di la xamal ne bis biñ ko tàmbalee ba léegi moog njaboot gi ñoo ko àndandoor li ñuy yëkkati ñoo koy yëkkatee ndoor lu ñuy teg ñoo koy tegandoo ndoor loolu sëñ bi bëgg na ci lool kàddu yi yëpp kàddu ak cant la ak ngërëm rek loo xamante ne nii indi ko sëñ bi bëggee xam naa duñ ko mën a waxee noonu ndax ni mu nekkee ci xolom dañ lottu ci jéem koo génnee waaye sëñ bi xolom sedd na guy sëñ bi njaboot gi mu àndul it gis nañ jàpp gi wax dëgg yàlla eh, diggam ak Baye Malick suñ ko bëggee wax mën naa am fii la ñuy fanaan ndax Baye Malick euh, bi mu fi nekk moo sëriñ bi booba sëñ bi sax cër bi ko dëkk bi jox demee demeegul nii daanaka booba dëkk bi jàppewuñ ko woon lenn waaye baay Malick fi ko fi ko dëkk bi woon te bu àndee ak sëñ bi dina jox sëñ bi cër boo xam ne ku fa nekk te gis mbir moomu rek dina nekk ab jàngale ci yow loole ñun ñi doon ànd ak sëñ bi ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax a baax a baax te loolu bëri na li mu def ci sëñ bi ak waa dëkk bi loolu ñu ngi la koy ñu ngi la koy seedeel yoo xam ne loolu fekkul fi woon waaye noonu la dund ak sëriñ bi nga xam ne moom booba sëñ bi dëkk bi mun naa ne si ci gaal baat bu gàtt daal teguñ ko woon fenn xamuñ ko woon. waaye moom li mu fonkee dertu sëñ Tuubaa ak ata atam yi fu muy tolloo ci jamono jooja bu dee sëriñ bi dina si moom mbaxanaam nuyoo ko niinu woo xamante ni ku fa nekk rek gis mbir moomu noonu dina nekk soññee si yow dina nekk jàngal si yow te loolu rek. benn la ci ni mu doon dundoo sëriñ bi ak ni mu daan taxawee ci bis bii nii daan ci teew di ànd ak ñun ci alxuraan di lépp ba bis bi di àgg fa fa fa ni ko bëggee woon loolu yëpp dund ko sëriñ bi ak yoo xamante ni du xaj ci jotaay bii nii waaye moom moom moom moom bi ko tuddee bis bi nuñ ko mënuñ koo fay daal te kenn si njaboot gi ku ne si njaboot gi rek jaroon na sëriñ bi jël bis bi tuddee ko. Baye Malick kon nag euh, kàddu yi kàddu cant la yoo xamante ni man dinaa ci lottu xam naa damay ubbi rek jox sëñ Arouna yi nga xam ne dama koy mën dama ko mën a jàllale moo tax mu feeñal si kàddu cant yi jërëjëf. leen si kàddu sëñ Souleymane rek amaan na man na sax waaye mën a ñàkk rek ñu feeñal la moom it yéene ji ak jëf ji nga xam ne moom it seen njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci jiital sëñ Basiir Seck ñoom wutu nañ la fi si yëpp ba liggéey bi tàmbalee ni ko Souleymane waxee yaakaar naa sax moom moo moom moo jiite mbirum décoration bi di wax ne def leen ni def te ñoo xëyee ñoom it yoraan mbirum kaamil gi kon lu ëpp solo si bës bi ñoo ko def doon doy sëkk rek ñu yebal benn sët mu teewal leen fi waaye boo déplacé Touba ba fii xat-xat yi yittee jamono ji nga bàyyi yëpp ñëw xam ne ne moom kon bës bi ñor na la lool kon moom sëñ bi bég na eh, xéewal gi nga xam ne moom it jàppee nañ ko si bës bi sëriñ bi xaaratoon xaaratoon ko si moomit ndaxte xam na ne moom sëñ Malick moom it eh, doonoon nga xam ne moom it si nitu yàlla yi moom it loolu képp moo tax ñu jagleel ko bës bi waaye lii moomit lu ñu lu ñu lu ñu lu ñuy sant la ba tey moom ndaxte sa jëwriñ ji nga xam ne nga fi bàyyi mi sëñ Basiiru bu bu amee bu amee ak bëgg def leen sëñ bi moom bu bëggee rek moom bëggam bëggul feeñati loolu moom yu bëri dañ ko si man di di di di di ko di ko feeñal ba si màggal daaru gi rek maa ngi Souleymane mais xam naa ne mu ngi bëgg sëñ Saali nee na ko ñu dem waaye xam naa ne yitteem njett na ko ba waaye sañuta wax sëñ bi ne ko am naa yitte loolu moom lu ñu xam la ndaxte suñ place lañ toog mu koy wax waaye saa sëñ Saali waxee rek moom dootu si ñemee di teg beneen kàddu loolu jéem a jëfee la loolu nag moom it cër gënu kaa kon moom it sëñ Saali moom it ni mu leen jàppee raw lu raw lu ngeen ko jàppee kon ñu ngi santaat bu baax a baax si délégation bi amaan na kawe na lool sëñ xaadim mi rek bu teewoon te xam naa moom sëti la moom képp bu teewoon doy na jotaay bi nga déplacé ñëw ànd ak mboolem kilifa yi ngeen ànd ak njaboot gi sëti yëpp. kon daal sëñ bi moom yaakaar naa xolam sedd na lool ñun moom lottu nañ waxal sëriñ bi waaye nag nee ñu mootileen li nga xam ne moom it mooy lu gën rek kon ñu ngi jéggulu si kàddu gi naa dañuy yemale jotaay bi ba ba si kanam am naa ñu gën a jottali kàddu gi kàddu sant gi ak kàddu moom yëpp daal ñaan sëñ bi daal ñu tasee ngir maan sëñ Tuubaa sëñ Caali daal kontaan bu baax a baax gën naa béggati kon ñu ngi jégglu bu baax si kàddu gi